صحبت لي رب البرية البدن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 te mbooleem lu ci nit yéene woon a jëf ba jëf ko mbaamu yéene woon ko te mënu ko lépp suñu boroom nangu ko te ful ko euh, def ko àddiyey Cheikhul Xadim te defal ca murit yi yàgguk Cheikh Mouhamadul Muntaxa akuk wéram dañ yàgg koo ànd ak moom di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdul Xaadir ak bokkam yu baax yi mu àndal sëriñ Abdul Ahad Mbakke Gaynde Fatma ak ñi mu àndal ñëpp di leen siyaare bu baax a baax eh, ci turu sëriñ Maam Moor mu Cheikh Mahamadul Fadal nga xam ne yéen daan ànd jataay bii eh, sëriñ Basiiru mu sëriñ Xabibu moom it ñëwoon na sëriñ Moustapha mu sëriñ Cheikh Gaynde ma ñëwoon na waaye ku ne xam na ne bis bi dafa lëkkoo ak ay xat-xat sëriñ bi sax mi ngi may wax ne ñu bàyyi ci xel ndax bi muy ñëw jot na wooteeb sëriñ bi am ñu fa war a ñëw ci kanam te war ko faa fekk waaye ginnaaw agseeguñ tax mu ne na agsi fii xam naa loolu dana sabab ñu tënk lu bari loolu it mënees na koo xam bis bi moom eh, mbooloo mi fi nekkoon sax eh, kenn ku ci nekk ay xat-xat ya nga bàyyi da koy yëg kon bu yoree ci sëriñ bi lii mu ci yor bu xatee loolu xel nangu na ko eh, ba tax kon li ñuy tàmbalee rek mooy sant suñu boroom bu baax a baax ci jataay bii tey gaaral tuuti ci xew-xew bii ñu nekkoon muy xat mu bii sëriñ bi jàng ba weeru tabaski desee tuuti la cheikh Mouhamadul Muntaqa joxe ndigal ci njàngum alquran wax ne dibeer ji jëkk ci muharram di ñetti fan nañ ci tàmbali njàngum alquran te fas ci ñu àgg ci màggal te weesu ko jàmm te lépp di jàmmi kese mbas meek njàmbat yeeg lépp sedd guyi ñu màggal ci jàmm ñëpp ñibbi ci jàmm te bàyyi fi jàmm loola donga yi biñ ko déggee ñëpp maase ci nga xam ne e, bokk na ci ndigal yi nga xam ne moom ni ko donte ndigalal daara waaye ni ko daara jàppe la ko murit yëpp jàppe moo xam muy kër sëriñ Tuubaa yi ci biir réew mi ak ci bitim réew daayira yi ba ci groupe famille yeeg ñëpp rek Eh, boo delloo ci sëriñ bi ne ko am na ndam ci alquran ndax diggante boob yi ma wax muy ñetti fan ci muharram ba tey jii jàpp nañu ne li ñu fi wàccee ci alquran taarix nettaleeguñu ko ndax fii ñu toog wóor na ma ne romb nañ xakkadun cent vingt mille kamil ci lu wér romb nañ ko loolu nag daara yi boobee ba tey jii bis bu nekk lañ ca sasoo kër sëñ Tuubaa yi daayira yi sëriñ Moustapha Gaynde Fatma mii dem léegi tundu pir xaadi da waa daare xaadi Amar Fall foofa ñoom rek liñ indaale ëpp na 419 kaamil jébbal na ma fi yu jóge Canada ak fondation Cheikh Ahmad Bam bi ci Washington waa Brescia bu dee biir réew mi moom sëñ Mourtada Diop léegi rek kër sëñ Mourtada ga ca ak daara ya ko wër juróom-ñaar téeméeri kaamil ak nangam Pap Jooma ci tundu Medina Sabax ak la ko wër lañ am nu toll kenn xamu ko mboolem fu kër sëñ Tuubaa yi nekk kon ni muy ñëwee moo tax mënuñoo am ci di ko teewlu waaye ci jamono bii may wax ak yow romb nañ xakkadun cent vingt mille kaamil loolu nag man dégg guma ko woon ci taarix fu ñu ko jàngee euh, yàlla na suñu borom nangul euh, nangu lépp te defal ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak bëggam xam nañ ne bëggu dong yépp mi ngi ci biir kon loolu di lu rëy rëy loo xam ne jàpp nañ ne luñ ko yenn rek attan na ko la ca toppit muy tari bii nga xam ne moom nga doon signeel gone yi nii seeni sahada waa tey jii rek jataay bi jàng nañ ci fanweeri kaamil ak juróom-ñett waaw day fàttali lu am solo eh, sëñ Malle Sarr ñoo daan ànd fii bis bu nekk danaa leen nuyoole mu doon jóge Gàmbi diirub ba nga dig ba bala Cheikh eh, Cheikh Mouhamad Lamine joxe ndigal ñu ubbi barab bi waxtu wu nekk bu ñuy xëy si fi lañ koy fekk mu dikk tegub saagam ñu di ko ànd ñun bu ñuy dem suñuy kër ak kuy dem fi nga koy bàyyi moom moo nekkoon xumdatul makaan daaw bi ñu agsee te gisuñu ko damaa jël téléphone woo ko woote mu wuy magam wuyu ma ne dafa tawat nekk hôpital yàlla dogal na mu noppalu ci diggante bi ba dem nañ fa ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa kon moom it ngeen fàttali ko te ñaanal ko jëm ab ab poto la woon ci liggéey bi sëriñ Malle Sarr noonu la ci meloon euh, tari bi moom it di seede rek ne téeméer ak juróom-ñaar ak juróom ci bi ndigal li jubee ak léegi nga xam ne alxemes lañ doon dajale donga yi ci kër sëñ Tuubaa gii ci daarul ma naan alxamis ju nekk ñu tarifa waaye sëñ daara yi def ci ngóora bu baax a baax ndax alxamis rek la ñu waroon am ci bisub noppal waaye bi ko sëriñ bi diglee ñu daal di jaayante te ku ciy ñëw sax yow ay paasal sa bopp léeg-léeg sax amaana añ ba ñu sant loo ñoom bu ñëwee tey bu ëllëgee ñu bëgg a defee seen kër. donte nag ay jàmbaara nga ca doon jàpp xëy na moo doon bari mbooloo bari mi moo maye nangami alxamis ñu déglu ci ba ñi ci jot a mokkal bañ defal leen sahada nii di téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu di lu am solo eh, ay jàmbaar taxaw ci eh, xam bëggug sëriñ bi ci alquran tax ñu wuutu ci sëriñ bi doon togg ay ñam di indi suñ ca tuddee seen mbokk soxna maam xari bu Cheikh Mahamadul Murtada ku ca jàmbaare la soxna maam Anta Dia rak ko Ablaye Dia bu Sénégal noonu am na sëriñ Modou ja ba ci sëriñ Cheikh juuf moom it eh, ay bokk yu nekk ci bitim réew mu wax leen liggéey bi ni mel daanaka saa buñ xëyee mbooleem yañ fay naan kafe yaag ay beñeek lu baree bari mu ñu jaayante ko ñoom di ko indi kon mbokki taal yi bañ déggee ne sëñ bi santaay na ko rek ñu taxaw ca taxawaay yu mel noonu ñooñu it ñu leen cee jaajëfal baax a baax a baax a baax di leen ci sant bu baax euh, tey jii nag ni ngeen ko gisee sahaada yi nañ bëggoon mu demee ko du ko mën a demee ngir euh, ku ne xam ne ne sëriñ bi nii mu xate rek ajjuma ba nëgëni lañ tàmbali ajjuma la lema woon bu ñu jógee ci jumaa ji naa la fekk ci kër gi booba ba tey jii bis bu nekk guddi buy ñibbi la ñuy tàggalikoo waaye démb la ci door a mën a siñe lim ci signé bis bu ne dañ fay ànd ba ñibbi jot rek ma xam ne xaju ci ndax ñëpp ko soxla ajjuma gaawu démb dimanche day signé ñu di ko woo muy jóg di dem di ñëw ba lii mu jot a li ci des it suñ jógee ci màggal danañ ko yóbbu mu signé lépp ndax moom la ko sëriñ bi dénk ñu woo ñi nga xam ne ñoo ci des jox leen ko loolu it pas-pas bu nekk am na ko ci ak yéene waaye li nekk ci loxoom moo bari kon loolu mi ngi ciy doglu ngant waaye xamees na ko bu baax a baax kon yi nga xam ne moo nekk nii rek dañ ciy symboliser lu toll ci juróom-ñaar mu joxe ko mook bokkam yi li ci des ngeen jéggal ko ko bu ko defee kon ni nga xam ne it noonu la baaxoo woon jataay bi ren soppiku biir tax mu dajaloo ci barab bii nga xam ne sëriñ Moustapha sëriñ Mahmadan ak ñiy jàng xasida ñoo ci daan nekk ñu boole ceeg ji alquran ak xasida it laa xarwa yàgg nañoo ànd kon buñ noppee mooy joxe kàddoom su ko defee sëriñ Cheikh Ibrahima si moom it sëriñ Mamor moom Cheikh Mamadou Fadel ni ma ko waxee woon ay teq-teq tax mu batale waaye liggéey bi nga xam ne sëriñ bi mi ngi koy santaane mu defal ko ci ab tënk Euh, su noppee sëriñ bi jotal kàddu sëriñ bi kon ñu jébal sëriñ Moustapha. mbokk yëpp di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadou Bassir ak sëriñ Abdou moom sëriñ Cheikh Gaïndé Fatma xanaa euh, kàddu yi rek waaye daanaka sëñ Xaadi li mu wax yóbbaale na sunu kàddu bu sëñ bi waxee yëpp mu gën a mat. kaddu cant rek lay doon ndax liggéey bi nga xamee ne dañ cee nekk muy liggéey Sëriñ Tuubaa ñu ànd ko mboolem ñi tuddee ahlu xasida te sëñ Aliou Diop eh, ne ca bopp ba sëñ Yirim Aw ñu ngi nii teew moom it ne ko suñu xaaj waxe rek ba safar teroo ba léegi ñu ngi jàng ay xasida di ko lim am nañ li li ñu takkoo takk yoo xam ne mënees ko jot li ngir jataay bi kon ñoom am nañ ci taxawaay bu mat sëkk ñu leen ci sant bu baax a baax a baax di santaat bu baax it di ñaan Cheikh Maodo Mountakha yàlla yàggale ko fi te wéral ko te mottali ko ay yéeneen yëpp Cheikh Maodo Bassir ñi nga xam ne it mooy taxawu liggéey yi yàlla yi kàttanal ko defal ko ndimbal ba kóoluteef gi nga xam ne ay kilifaam am nañ ko ci moom mu matale ko sëkk yàlla musal ko sàmm ko di sant yi daara yi Mafatihul Bichri ñoom ñi nga xam ne ñorul jàng léegi ak mboolem euh, kuréel yi fi jàng yëpp rek kon moom kàddu yi du mën a gudd ndax xataay yi xanaa bàyyi euh, sëriñ bi rek moom lépp loo xam ne mat na mat na mat na ci wax eh, dana ko wax jotli ko te bu waxee it sunu kàddu dugg ci biiram ñu ngi sant tey gërëm tey ñaan lépp loo xam ne sëriñ bi da koo dëlee ci bisu tedd bi ñu rëjee caag lu koy seen jot jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadu akbaru ridwanillahi taala ala xadimi rasulillahi muhammad ibni abdillahi mbakki asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ashab alfadilati alhaadirin ci ndigalal sëriñ Mamor Mbàkke fadilu laay jëlee kàddu ngir tànnal ngir jottale ab nuyoom bu mu tànn ci nuyoo ya gën a sell jamano ko ci cheikh mouhamadul basir moom sëriñ abdul xaadir mbàkke ak bokkam yu baax yi mu àndal ak taalibeem yi ko wër ak ay siyaaraam ya mu tànn ci siyaare ya gën a kawe ngir siyaare ko moom ak i bokkam ak taalibeem yi ko wër maa ngi jël kàddu it ngir rotal fi ay kàddu yoo xam ni dafa sàkk woon ñu rotal ko kon Cheikh Mouhamadul Basir yow mi nga xam ne yaay sëñ Muntaxaam jataay bi sëñ Maamoor Mbàkke nee na mi ngi lay seereloo yaag sa bokk yu baax yi ak seeni taalu taalibe ne mi ngi santale sëriñ Tuubaa yàlla tey sant bu baax sëriñ Tuubaa ci baaxe gi mu ko baaxe boole ko mu bokk ci taalibeem yi dellu di ko gën a dollee sant ci ngëneel lim ko defal def ko mu bokk ci njabootu boppam Cheikh Mouhamadul Bachir Serigne Mamour nee na mi ngi lay seereloo cant gu mu tibbee ci xolam cant gu sell gu muy sant kilifaam yi kilifaam yi ko doyloo tànn ko ci bokki sëñ daaraam yi ngir liggéeyal leen ci daara ak ci ci waa daara tàmbalee ko ci kilifa boppam gi sëriñ Abo Mbakke mu alaaji Mouhamadou Fadal Mbakke moom bi ko yebaloon ne ko demal ci sëñ Sidi Maxtaar mu wax la liggéey bi muy sàkku ci ñun na mu ko bëggee nga defalee ko ko nee na ba mu demee ci sëñ Sidi Maxtaar mu wax ko liggéey bi ni mu ko bëggee ba ko waxee ba nopp def koo joxoñ Cheikh Mouhamadul Mountakha ne ko moo ci sa jawriñ ba mu demee ci Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ko mu bég ci rafetlu ko lool jox ko ay taw soññi ko ca jox koy taw jihaat ne ko nañ ko ànd ak mbooleem kuréel yi yëngatu ci alquranul karim ni ki rabitatul madarisul quraniya bi nga xam ne ña ko jiite say kilifa lañu ndax Cheikh Mouhamadul Bachir moom alaaji Mouhamadou Fadal la ak Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Abibulahi Mbakke la ne koy nañ ko ànd ak mbooleem kuréel yi yëngatu ci xasida ndax Sëriñ Tuubaa ñaari sàll la am alquran wal xasida ni ki mbooloo mi ànd ak Sëriñ Xamsatu moom Sëriñ Suwaybu ci noonu la ab kuréel juddoo boo xam ne bii yitteem mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci alquranul karim ak ci daara yi kuréel boo xam ne bu sëriñ bi soxlaa njàngum alquran waxtu wu ko soxlaa ak fum ko soxlaa ak nu mu ko soxlaa ñu taxaw ca ba na ko sëriñ ba bëggee mu amee ni kuréel boo xam ne day bàyyil xel sëriñ bi daara yi su ñu amee jafe-jafe su jafe-jafe ba jarut yeggale sëñ bi kuréel ba taxaw ca saafara ko na mu gën a rafetee su fekkee ne jar na yeggale sëñ bi ñu yeggale ko sëñ bi su leen ca sëñ ba wax looxee ñu wax ca su leen ci yónnee ñu dem su leen ci jëflooxee ñu jëf bokk na ci liy firndeel am solo kuréel boobu ni ko sëñ Xaari Jaxate waxee léegi màggalug ren gi ci situation exceptionnelle lañ ko def sëñ bi gis ne dafa laaj waajtaay exceptionnel ci alquranul karim di ko sëñ bi bëggee wax leen lañ tasee fii ci kër sëñ Tuubaa gi ci jumaa ji ñetti fan ci weeru muharram ngir tëral yoon woo xam ne bii suñ ca jaaree sëriñ bi ni mu ko bëggee dana ne amee bokk na ca lañ fa tëral kerek ni daara ju ne na jéem a jàng ñetti kaamil alquran ci bis bi su ko mënut na jàng ñaari kaamil alquran ñetti kaamil alquran lañ njëkk wax su ko mënut na def ñaari kaamil alquran su ko mënut na def benn kaamilu boole ci ñu ne alxames ju ne sëñ daara yëpp ak dong yi wóolu seen bopp ci alquranul karim nañ tasee ci kër sëñ tubaab gi ca daarul mën naan sañ daara yi déglu leen yoon woowu moomu lañu ñu topp ba yegg si ci tey jii nga xam ne waajtaay wi ñu ngi koy tëj ngir ubbi nag màggal bi bi nga xamee ne bii def nañ sa ihsaa'iyaat def suñuy taqdiraat ni ko sëñ Xaadi Jaxate waxee léegi gis nañ ne jàng nañ lu ëpp fuuf xaqadun minal uloofi ci kaamil muy lan téeméeri junniy kaamil ak ñaar fukki junni kaamil ak ñeenti junniy kaamil Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Serigne nee na cant yu sell yu dëggu ànd ak ay ñaan yu sell yoo xam ni yasmulu jamial xayraat mi ngi koy yu bàyyi ci waa daara ak waa ahlul quran mi ngi koy teg ci sa loxo ngir nga jottalen ko sëñ bi li tax mooy lan gis nañ ne sëñ bi taxawaayam dafa mat sëkk ci wetu sëñ daara yi ak wetu ahlul quran taxawaay bi rafet na ba tax na mu ne ñu ngi ñaanal sëñ bi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak ndax sëñ bi kat maddiyan wa mahnawiyan ni mu taxawee daara dafa jéggi dayoo al misaalul mahnawi yu moy lan bi noonu lislaam yi amee yaqiin ci ne fee gone yi gone yi jullit yi ñi ngi jàng alquran ci daaraay alquran yi mag ñi di ko durus ci jàkka yi ak jumaa yi liñ bëgg ci lislaam duñ ko am mukk ñu jël seeni man-man ak seeni am-am ak seeni pexe ne na daara fay na jàkka tëj na jumaa tëj waaye am na koo xam ne kii gëm yàllaam ga ak bëgg lislaamam bi ak fonk ndolol sëñ tubaar yi di alquranul karim jaral na ko ko bu jóg taxaw ne du am kooku du kenn ku dul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mii su dee al misaalul maddi yi kenn ku ne xam ne sëñ Mountakha yëg-yëg bi mu am ci daara at mu ne ay toni toni toni toni ceeb ak dugub lay séddale amut lenn luy rot ci sëñ Mountakha Mbacké loo xam ne li amal na njaar amal na daara njëriñ te sëñ Mountakha xalaatu ca daara séddut ca daara rawatina ren ji bi nga xamee ni bii mbas mi dafa dugg ci réew mi indi ay jafe-jafe yu bëree bëri rawatina ci daara mi doon dund situation critique noonu l'islam ah, voilà la bonne occasion ngir am nag li nga xam ne moom lañ bëggoon ndem ñu amutoon jafe-jafe ñoo am jafe-jafe rawatina daara kon nag a ah, léegi moom jeex na Sëriñ tax moo jog ne déedéet yëkkati juróom ñetti fukki. tonn jox waa daara ñu séddoo woo murit yëpp ne leen def leen seen loxo ci daara ñaan jullit yëpp ne def leen seen loxo ci daara murit yi bëgg gu ñu bëgg sëriñ Touba ñëpp wuy si li wooteeb sëñ bi wuy see ko fu ne wuy see ko nu ne bokk na ci ñi nga xam ne wuy si nañ wooteeb sëñ bi fi sëñ sëriñ Mamour Mbacke Mountakha gannaaw bu sëñ bi defee juróom-ñetti fukki toni ceeb yeeg dugub Touba ci kanam ñëw na fi indi fi lim bu takk ci ay toni ceeb ak diw ak bagage yu bari yooyu aar nit ñi ci mbas mi Touba mosquée commune bu Touba mosquée ñëw na wuy si indi ceeb euh, ton ceeb kii mm, lim bu takku ci toni ceeb ak diw ak bagage yuy aare ci mbas mi soxna Bali mun taxa wuy si na indaale ton yu takku ci ceeb boutique bu ñuy wax Touba Belel ay commerçant yu nekk ci marché bi fii booloo dem fa dajale fa toni ceeb yu bëree bari wuy si nañ indaale Serigne na Diop wuy si na indi ton yu takku ci ceeb ma ñaay jong yàlla na ko yàlla yërëm te may ko maxfiratu ak rahmatu du benn yoon la ñëw moom ay yoon yoon la ñëw indi ay toni ceeb sëriñ Mboup indi na fi bu takku ci suukar ak ay bagage yuy aare ci mbas mi sahaadatu safir sëriñ Abdoul Ahad Mbacké moom alaaji Mouhamadou Fadal Mbacké wuy si na indaale ton yu ay ay ton ci ceeb Serigne Moustapha Cissé Lo wuy si na indi ay tonnes ci ceeb Hizbut Tarqiyyah wuy si na indi lim bu takku ci ay carton soow ak ndox mu sell ni sëñ bi def ak ni taalib yi taalib yi wuysee bokk na ci li nga xam ne moo woyofal jafe-jafe yi daara naroon a am kon sëriñ bi ñu ngi sakku nga ñaanal ñii boole leen ak sëñ bi mu ñaanal leen ngir bañ a guddal des na yeneen nag yeneen waaye ma yemale ko foofu Mbàkke Bale sëñ Maam Mor nee na mi ngi lay siyaaru lu baree baree bari di sàkku sa ñaan ay téq-téq yoo xam ne yi xaarija iradatihi la moo ko ñëw das na lu baree bari nag ñi nga xam ne ñoo doon dimbale ci maanaam maa nee na mi ngi sant kuréel bi nga xam ne sëñ Xaari Jaxate moo ko jiite di ko jàppale ci organisation njàng bi ak di ko jàppale ci liggéey bépp bu aju ci njàng mi ak commission bi nga xam ne man la digal ma jiite ko ak it bokk bokki taalibe yi nga xam ne dañu fay indi seen tiranga di ko jox ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi maa ngi jégg jégalu mbàkki ci baat bu naqari bi <laughs> yal na yàlla guddal saw fan wéral saw yaram yàgg fi loolu tam ànd ak wér gu yëpp saahiran wa baatinan di la bëggee bu baax mbàkki bëgg Cheikh Abdou Bali maa ngi si yaaru maa ngi si yaaru sama xarit nga maa ngi si yaaru a baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yu tedd yi ci teew yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh mu Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér daanaka kàddu cant rek lay doon ndax li ci mosoon wax lépp ñu jiitu wax ko kon ci turu sëriñ bi mi yëkkati kàddu yi cant ak i ngërëm di ko teg ci loxol. sëriñ Mamour Mbacke mu Cheikh Mahoudou Fadil li nga xam ne jataay bii naka jëkk ñoo koy ànd di ñëw mu di ko taxaw kon sëriñ baa koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal ci barke sëriñ Touba liggéey bi mu koy liggéeyal te mu xam ne lam ci doon séntu lépp mi ngi koy def yàlla na ko yàlla gën a dëgëral sàmm ko te guddalu fanam te may ko wér gu ba lépp mu àggal fa mu bëgg kon si Ibrahima sëriñ bi ñu ngi lay yóbbante cant gi ci sëriñ Mamour nee ko sëriñ baa koy sant waxtu ne ndax moom ne Cheikh mu Mountakha daan doxee ci kilifaam rek day def sami'naa rek moom day ci digg fa moom xam na ko bu baax mboolem ñu bokk Sëriñ Tuubaa ñëpp itam xam ne taxawaay kon dañ bu baax nag sëriñ Moustapha Mbacke mu sëriñ Mahmoudou Diop mi nga xam ne moo jiite kuréel xasida yi taxaw fii moom itam ba mu jotee ndigal yàgg na mën na fukki at ba léegi ne kenn du ko soññ xam na ne ab jigéen moom dama ko waxoon rek la Serigne Touba féetale moom maamu ma Massamba ci xasida yi loolu lay jëmmal fii waaye nag mu ngi koy dund di ko yëg te di ko doxe at mu jot ñu ci def taxawaay lam man ak la lépp waaye nag ka muy jëfal moom am nag ko kon ñu ngi koy sant bu baax ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal moom itam suñ borom dëgëral ko te guddalu fanam ndax bokk na ci yaakaar yoon bi di nuyu itam Serigne Khady Diakhaté mi nga xam ne moo jiite daara alxuraan yi fii te moom itam di ko taxaw ñu di ko ci sant bu baax ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax moom itam ba ndigal li ak sa coom ba nëgëni mus ca yokkat mus ca tay ak mu jot mooy ñëw fàttaliku sax balaa ndigal di agsi te buñ ko xasee jox ndigal kam la ca lépp ca taxawaay lu mu ca ma ci mën lépp mu ko def kon moo tax ñu ngi koy sant ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal liggéey bi mu taxaw te waxtu ne mu ci def lu ma lu mën yàlla ko suñ ko dëgëral sàmm ko ba fa cee jëm di sant mboolem sëriñu daara yi fi teew yëpp nag bàyyiwuma kenn buñ tuddee sëriñ Mamour rek ñëpp tàbb nañ ci biir. waaye sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax sëriñ Tuubaa kat bis bii ñëpp xam nañ li ko taxoon li mu wax ne ko ñëpp sant la yàlla waaye lépp lu ñu koy defal nag jaar ko ci alxuraan xel war naa caa dal war na caa dal ne dana ci daje tawfeex ngir moom kon nag sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp balaa gën a guddi sëriñ bi dañuy xaar ci jataay xam naa ñëwal foofu kàddu yi di ñaan rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu teewaat fi mu ne jàmm. suñ borom di ñaan mbas mi mu jeexe lépp ndax bi ngeen tàmbalee njàng mi kat ñëpp gis nañ résultat bi mu jur kon yàlla yàlla saxal loolu ndax bi ngeen tàmbalee kat lii fi di wàcc ba léegi kon loolu wane na ne alxuraan moom mën naa saafara lépp te loolu nag mooy mooy suñ gànnaay kon nag loolu lañ ko gën a fonk te gën koo dëgëral gën koo yokk ba màgg di jàlle itam mu tàggoo ci réew mi ba ñu di si waat wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.